yaa arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa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 ñaan borom bi subhaanahu wa mu nangul ñu wulidal huda falkaahinaatu diyaahu mu mel ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg nañ ci aw weeram weer wi nga xam ne ci la feeñe woon ci ñun xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu huwa xayrum mimma yajmaun yal nañu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa ñu war a amaat occasion nafaraat dundam gi war a amaat occasion wu jàngataat ko maa ngi ci ndokkeel soppe yonente bi yépp sallallahu alayhi wa moo xam daayira yi tudd sopp na bi moo xam ñi nga xam ne dañ ko bëgg fañ nekk di ci beral ak ñaan bu baax a baax a baax a baax yaayu nabi soxna Adama Badiane yaram moom xaw a sutante yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla saafara laa bëgg a wax delloowaat ko ci njabootam dem nañ xool ko ci fa mu tëdd ndeysaan fu ma mas a tudde rek ba wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, mu daal di yëglu ne wane ne soppeem la yal na taw euh, tawféexi ku sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii ci àdduna waaye dajeeg moom ëllëg yowmal xiyaam ñoo ngi koy nuyu di nuyu sopp na bi yépp yépp ku lim juum démb bi ma yëkkati jotaay bi ñi ngi woon suñu waxtaan wi nga xam ne moo jëm ci julli ba ma agsi woon ci nodd gannaaw ba ma waxee àtteem nodd wax ne dañoo wax ne sunna la bu dëgër ñam ci tuuti ay wuute imam malik am bum ci indi ak ñam ci àndal waaye imam abu xanifa wala imam shafii ak abu xanifa ñoom it am luñ ci joxoñ waaye ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne sunna la bu dëgër li ñu wuute kay mooy ci mbooloo wala ci kenn dong waaye bi may jeexal ma ñëwoon ci eh, ni nga xam ne noonu la ñëwee moom noddu abdullahi ibnu abd ibnu abdi rabbihi mi mala la waxoon léegi te waxoon la démb ne la bokkut ak abdullahi ibnu azim moo ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ diglee ne julli mën nañ koo def kon ci e, am naa xuus maanaam lu mel ne joolooli nga xam ne dañ koy tëgg buñ ko fëggee mu mën a dajale nit ñi ngir ñu ñëw julli si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne moom daal loolu jubuwu ko ndax day mel ne day dëppoo ak ñi nga xam ne bokkuñoo ak ñoom diine ñu yor jeneen diine te ñoom ngir ñu woote ngir ñi ñu ñëw jaamu si yàlla day mel ne dañuy fénqale ay weñ tam bëgg a ñoom ndax lislaam moom daa yàgg bëgg dem ak boppam te it daa yàgg bëgg dem ci ak liberté waaw nga xam ne kon bu fekkonte ne li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ba tax mu bàyyi fi loolu jëfandikoo nañ ko eh, pirate dootu am pirate nga xamante ne lu waaye def rek keneen ñëw def lu mel noonu ko kere menn mbir ba nekk ci rek keneen ñëw defaat lu mel noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bàyyi loola ndax def ko sib ndax dëppoo gi nga xam ne moom lay dëppoo ak ñi nga xam ne bokkuñoo ñoom diine ñeneen diine joo xam ne noonu la ñuy wootee seenu jaamu yàlla nee na moom mu mel ne dafa tëdd di nelaw di nelaw moom Abdullah nee na gis jenn waa joo xam ne mi ngi yor ak liit mi ngi yor ak liit ak tuxura ci ay loxoom nee na ma ne ko lii la mu ne ko dafa mel ne dama ci woote ngir euh, nit ñi mën a daje ngir julli dama ci woote ngir nit ñi mën a daje ngir julli nee ci gént gi kooku ne ko ndax duma la jox lu gën loolu ndax duma la jox lu gën loolu mu ne ko axa kay mu ne ko danga nga naan allahu akbar allahu akbar allahu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah xayya ala salaa xayya ala salaa xayya ala alfalaax xayya ala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah nee na ma yeex tuuti ci loo xam ne yàggut mu daal ma cay dolli leneen muy liqaam liqaam ak noddu len wutale rek mooy ci biir liqaam ga am na xadda xaamati salaa danaa ci ñëw nee na bi ma xëyee ma ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali ko li ma gént nettali ko lii ne ko lii de wax nañ ma ko ci gént wax ko baati nodd yi nee na yonent bi ne ko innaha la ruhya xaqa inchaa allah ne ko sa gént gii de dëgg la ndem soob na yàlla ceroo ko waxee nag mu jàngal bilaal baat yi mu jàngal ko ko ngir bilaal dem noddu ndax bilaal moo gënoon a kawe kàddu moo gënoon a kawe kàddu gënoon a mën a jooxe baat yi ba àgg bi nga xamante ne Bilaal nodd na rek Seydina Omar ibnu Xataab bi mu ko déggee dafa dawee këram ñëw ma ngay diri mbalaan ma sax ndeysaan ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi giñ ci sama borom mi nga xam ne moo la ni ci dëgg laxat raaytu misla lasi raa lii day Abdullah mi wax ne moom la gént gént naa lu ne mel manit démb dama ne woon su ma yewoo ñëw wax la ko far noddu gee ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kon fa lillaahi kon nag ñu sant yàlla mbokk yi cosaanu noddu noonu noonu yi la ñëwee noddu nag bari na ay ngëneel lool bari na ay ngëneel lool maa ngi ndokkeel noddukat yëpp nga xam ne ñoom ci déglukati almisbaax yi lañ bokk déglukati almisbaax yi lañ bokk nga xam ne léeg-léeg sax ñu yokk jom ndax danga naan bi ma déggee noddu gi laa yeewu nga yeewu di biin biini te moo ne sa moroomum jullit moo yeewu moom waaja këram dem ba ca jàkka ja noddu ngir yeela euh, xadis boo xam ne imaam Buxaari indi na ko ca téeréem mu bokk ci xadis yi abi hurayra yi radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu nit ñi xamoon li nekk ci nodd ak li nekk ci sàppe su njëkk nee na kon de dana leen yitteel dana leen yitteel lool lool lool lool lool lool ba danañ ko xëccoo danañ ko xëccoo kon yaakaar naa dana ay examen ci jàkka ji yoo xamante ne dañuy xool kan mooy noddu tey nga ne ko boo noddee tey bu subaa maay noddu waaw maanaam noddu du mbir mu doyadi waaye kii noddu ndekete bu ñu xamoon li ci ne ci tiyaaba kenn du ko bàyyee kenn du ko bàyyee kenn kenn kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ke ne su fekkoonte nit ñi xam nañ li nga xam ne moo nekk ci tahajir tahajir tahajir eh, borom xam-xam yi dañ koy tekkee ne mooy at tabkiir wala wal mubaadara ila salaati waaw mooy teel ak gaawantu jëm ci julli yonent bi nee na buñ ko xamoon dinañ dañ koy njëkkante dañ koy njëkkante mu ne bu nit ñi xamoon li nga xam ne mooy maafil atama maafil atama atama mbokk yi ne mooy julli gee wa salaati subhi ak julli suba mu ne la atawhuma walaw abwa nee na kon dey nit ñi danañ ko jox yitte donte dañuy raam danañ góorgóorlu bay julli si jee jee ci mbooloo mi waaye danañ jox solo lool li nga xam ne mooy julli suba li tax ma xadis bi mooy noddu noddu li nga xam ne moo ci nekk ci aw yiw yonent bi nee na buñ ko xamoon dañ koy njëkkante kenn du ko bàyyee kenn imam ahmad net li na xadis boo xam ne mi ngi bokk ci hadis yi abi hurayra yi radiallahu anhu nee na al muazzinu yaxfiru lahu mada fawtahu wayu wa yusaddiqahu kulla ratbin wa yaabisin nee na am noddukat ab noddukat nee na fépp foo xam ne kàddoom àgg na fa rek lu mu romb rek looloo ngi koy jéggalul boroomam looloo ngi koy ñaanal jéggalu boromam nee na lépp loo xam ne lu tooy la wala lu wow wala lu mën di doon ci kaw suuf mu ngi koy dëggalal la nga xam ne loolu lay wax te képp koo xam ne ñëw na julli si dana am tiyaaba ju tol noonu dana am tiyaaba ju tol ne képp koo xam ne ñëw na ñëw na ñëw na julli si ñëw na julli si moo tax noddu li ci nekk ci tiyaaba bari na lool eh, imaam muslim indi na xadis boo xam ne mi ngi bokk ci xadis yi muawiya mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne al muazzinuuna atwalu nnaas axnaaqan yowma alxiyaama waaw atwalu naasa axnaaqan na noddukat yi ñooy gën a gudd nit ñi ay baat ëllëg yow mal xiyaam maanaam baat yu gudd la yor waaw xam nga eh, dox baat bu gàtt bu ne toq toq xaaral mel ne eh, sa sikkim bi daa taqaloog eh, sa mbag yi loolu rafetut daa bokk ci ab taar dox dox dox gu mat mm-hmm. dox gu dox dox gu gudd moo tax bu xale juddoo sax nga gis ñu koy takkal dara te itam loolu teraanga rek lay tekki cofeel lay tekki ëllëg yow mal noddukat yi ñëpp leen di xàmmee foo leen gisee yowmal xiyaam xàmmee leen waaw ndax teraanga jooju nga xam ne moom lañ la indil ak maqaama yëqatiku yooyu nga xam ne moom lañ ci wone ndax arab da daan wax ku tedd ne kooku day tawilul unuq la kooku dey wax di yàlla boroom loosu gudd la daa bokk ci seenu tagg euh, imaam tabaraani indi na wax joo xamante ne mi ngi bokk ci xadis abdullah ibnu omar yi radiallahu anhuma nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñett ñi ëllëg yow mal duñ bokk ca ñooy tiit ca mu mag ma ñoom duñ ca bokk te it duñ am mbugalum borom bi subhaanahu wa taala mu ne ki ci njëkk mooy góor gi nga xam ne day jàng alquran te yàlla dongu tax waaw nit ki nga xam ne xaraqal quraana ibtiqaa wajhillah day jàng alquran ngir jëmmi boroomam ku ñaareel ki ki nga xam ne dafa jiite aw nit ba noppi nit ñi kontaan ci moom doon président boo xam ne ab population dañ ko bëgg borom kër boo xam ne njabootam dañ koo bëgg imaam joo xam ne waa jàkk ja dañ ko bëgg chef de quartier boo xam ne waa quartier ba dañ ko bëgg directeur boo xam ne employé am ya dañ koo bëgg koo xam ne da ngaa jiitew nit te nit ña bëgg la ëllëg yomal xiyaam da dangay bokk ci ñi nga xam ne duñ la xisaab dangay bokk ci ñi nga xam ne dangay mucc ca tiitaange gu mag ak ki nga xam ne mooy woo nit ñi jéeme leen ci julli te yàlla tax mooy noddu kon noddukat bi ak ki nga xam ne dafa rafetal li dox digganteem ak boroomam dox digganteem ak ñi mu yilif dox digganteem ak boroomam dox digganteem ak ñi mu yilif nee na ñett ñi daal ëllëg yomal xiyaam duñ bokk ci ñi nga xam ne dañuy am ca tiitaange moomee imam Buxaari nettali na ba xadis boo xam ne mi ngi bokk ci xadisi abdullahi ibnu abbas yi radiallahu anhuma nee na jaa rajulun ila nee na jenn waay dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko allama nii wala mu ne ko aw dalla nii waaw ma wala mu ne ko tegtal ma ala amalin yadxulunil janna jëf joo xamante ni daf may tàbbal aljanna waa ji loolu la wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko mandaal daal damaa bëgg nga wax ma jëf joo xam ne su ma ko jëfee rek mu yóbbu ma àjjana loolu laa bëgg waaw mel ne ku ne ko bëgguma fee yàgg nag jëf jooju daal moo ma indi yonente bi ne ko kun mu addina doonal am noddukat doonal am noddukat ndekete am noddukat euh, di noddu te yàlla tax di woo nit ñi julli euh, jëf la joo xamante ne bu ca saxee ba faatu dugg aljanna ah waa ji ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa astatiu man munumaa nodd waaw duma ko man yonent bi ne ko kun imaaman kon nekkal imaam nekkal imam waa ne ko laa astatiu duma ko man mu ne ko xum bi ida il imaam doonal kon koo xam ne da ngay jege imaam ida dañ ne xariban minhu da ngay doon koo xam ne ku jege imaam nga yonent bi ne ko doonal kon ku jege imam mbokk yi kon noddu ay ngëneel am a ngi noonu ci ngëneel yu mag yee mag la bokk maa ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñoo koy def ñëpp bu ma ñëwee ba ci teggin yi danaa ñëw ci defin weeg yi nga xam ne moo ci aju am na nag kayfiya noo xamante ne noonu la mooñe nodd noonu lañ ko mooñe loolu am na ñetti façon ñetti façon nodd yoo xam ne moo gën a siiw waaw moo xam ne moo siiw ñett yooyu ba ci njëkk mooy kiy noddu day wax allahu akbar ñaari yoon ñaari yoon lay wax allahu akbar mooy allahu akbar daal di xam ne ñaari yoon yooyu la koy wax buy tàmbali euh, shahaadatayni yi mu def ko ñeenti yoon mooy wax ñaari yoon ashadu an laa ilaha illallah ci suuf wax ñaari yoon ashadu anna muhammad rasulullah ci suuf door a wax ca kaw ashadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah waaw nga xam ne noonu la koy waxee da koy wax ñaar ci suuf ñaar ci kaw muy ñeent nga xam ne loolu xeet ci xeeti nodd yi boobu mooy bi nga xam ne mooy mazhabu al mutaaxirin min ashaabi malik waaw ñi mujj ñëw ci àndandooy Malik yi nee nañ imam Malik radiallahu anhu nii la daan diglee ñu di ko nodde defe naa ci suñu réew mi loolu yaatu na fi lool lool lool lool lu dul nag biñ tàmbulee naaral nga xam ne la la ñuy déglu nodduy kaset yi la la ñuy déglu nodduy neexal yi ba njàngale mu njëkk mii dootuñu sàmmonteeg moom nga xam ne waa de ñëw naan allahu akbar wallahu akbar daat dem danaa la wax boobu ñen ñoo koy def ak lan mooy àtteem waaye bu njëkk bi ma wax nii mooy bi nga xam ne moom la wa école imam Malik jàngale mooy wax allahu akbar ñaari yoon ci bi ngay tàmbali waaye baati seede yi nga def ko ñeenti yoon nga def ko ñeenti yoon ñeenti yoon yi ñaaru njëkk yi day suufe ñaari njëkk yi day kawe am na beneen boo xam ne mooy dangay def ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar ay yaxal sala ñaari yoon ay yaxal falaa ñaari yoon allahu akbar ñaari yoon laa ilaha illallah benn yoon loolu itam ci àtte bu njëkk bi ma wax la ci genn noddu gi la ci misaal mooy noddu gi nga xam ne moom lañ jàngale ci masabu imam malik mooy da wax allahu akbar allahu akbar xam nga ñaari yoon nga ko wax seede yi ñeenti yoon lañ bëgg a wax ko ñaaru njëkk yi day suufe danga naan ashadu an laa ilaha illa allah ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan kon def nga ko ñeenti yoon nga ko ñaari yoon a ngi noonu yoo xam ne dafa suufee ñaar ñaari léegi na nga yëkkati ko ashadu an laa ilaha illa ci kaw ñaari yoon def ko ashadu anna muhammadan rasulullah boo noppee ci loolu xayya ala salaa nga def ko ñaari yoon xayya falaa nga def ko ñaari yoon allahu akbar nga def ko ñaari yoon laa ilaha nga def ko benn yoon noddu gi jeex kayfiye ñaareel bi te mooy defiinu defiinu ñaareel bi moom noddu mooy day nuroog bu njëkk bi ci misaal mooy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 waaye nag li ci des ñaar ñaar koy def mooy doo wax ashadu an laa ilaha illallah ci suuf door ko wax ci kaw mooy suñ jàkke yi léegi jàkke yi yi nii ma wax la nodde waaye duñ nodde noddinu njëkk wi nga xam ne moom la imam Malik jàngale ñoom ñi ngi def bi nga xam ne mooy mazhabu imam Abu Hanifa te mooy allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah xam nga ñaar ñaar nga ko def te ñeent moo nekkoon ca masa bu imaam Malik ndax day ñaar ci suuf door nga def ñaar ci kaw ñoom loolu mooy masa imaam Abu Hanifa imam malik ñoom almalikiya sax laay wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ñoom dañoo wax ne seen mazhab ñu ngi ko jëlee ci jëfi ahlul madina waa madina day ñoom noonu lañ gis ne noonu lañ doon nodde te dañoo gis ne madina la yonent bi nekkoon loolu def jeexital yu wër a wér ci la ñuy def imam shafii mi indi ne allahu akbar yi ci tàmbali gi dañ koy def ñeenti yoon nee na waa màkka noonu lañ doon def indi itam ay delluwaay yu wér imaam Abu Hanifa bi ma wax léegi te muy def ñeenti yoon kàbbar yu njëkk yi def ñaar ñaar euh, sahaadataani yi nee na loolu mooy jëfi kuufa ñoom itam ñu indi ay jeexital ñoom ñëpp kon dellu nañ ci euh, li nga xamante ne mooy njàngaleem euh, saxaaba ya wala njàngaleem réew ya ñekkoon la nga xam ne moom lañ doon dund moo tax dàqoo ci benn waaye njàngale mee soxla ñu leeral ko ba tax nga bañ cee xuloo boo gisee ku noddi nii kii noddi ni kii noddi nii nga xam ne nii la waaye ni ma njëkk a wax nag mooy noddin wi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci école imam Malik rahimahullah moo tax boo demee ci imam Ahmad ibnu Anbal ak imam Daawuda az-Zahiri dañuy wax ne melokaan yu wuute yi indiwut ak coppi indiwut ak coppi ndax nit ñi dañoo wuute rek loolu tax xam naa léeg-léeg yëf yi boo demee ci réew mi am lu ñuy def lu mel nii am lu ñuy def lu mel nii waaye cosaanul jëf ji moom lenn dong lay doon am na tuuti nag lu am ci noddu loo xamante ne mooy noddu gi bu fekkee noddu suba la noddu julli suba te ci googu dong la am mooy ginnaaw bi nga waxee xayya alal falaax nga teg ca assalaatu xayrum minan naw mi ñaari yoon asalaatu xayrum min annawm asalaatu xayrum min annawm lolu mooy julli moo gën nelaw yeewu leen abi mahpura radiallahu anhu nee na dañoo wax yaa rasulallah ne ko allamani al adaan jàngal ñu nodd nee na yonent bi jàngal ñu ko wax ñu nii ñuy nodde waaye mu nañu bu fekkee jullik suba la xultu asalaatu xayrum min annawm alsalaatu xayru min annawm allahu akbaru allahu akbar laa ilaha illa allah ahmad nettali na xadis boobu loolu kon di loo xam ne day dugg ci noddu ak ni nga xam ne noonu lañ koy defee buñ yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla nañ yàlla may ñu dund ba suba ak jàmm ko danaa ñëw ci teggiin yi nga xam ne kuy noddu war naa sàmmonte ak moom ak yi nga xam ne moo ci aju yépp door a ñëw nag ci li nga xam ne mooy waxtu yi waxtu waxtu noddu wan waxtu lañ ko war a def moom noddu eh, ak it nan lañ koy defee dëgg-dëgg yàlla na yàlla ñu dund ba subaak jàmm te weesu ko ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi leen di baalu àq ñoo ngi leen di baal ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal defal ñu weer wi nga xam ne mooy weeru yonent bi alayhi salaatu salaam nekk weeru mbégte nekk weeru ndokkeelante waaye nekk weeru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 ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëfal oustaz euh, seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.